amul ma ne sëñ bi bindu sëriñ bi bind rek la bindu sëriñ bi du alxuraan du sunna bindu sëriñ bi du bind du du waxu yàlla bind la comme paate bee toog fee bind comme moodu toog fee bind comme bind kese la bind sëriñ bi bindu nit la nit buy bind day am lu jub day am lu juum nit moo mel noonu bu fekkente ne ña gën a foor sëriñ ba muy ñoom imam malik ñeenti ngir yi imam malik abu xanifa shafii ay ñoo ñoo gën a foor sëriñ bi ñoo dañuy bind sax di juum ñooñu nee nañ li ma bind wala li ma wax mu dëppoo ak jël leen bu wut ak alxuraan sunna ko ci miir bi sànni leen ko rejeté leen ko te ñooñu ñëpp xam nañu sëriñ bi ci ñooñu sax la tënk woon sëriñ bi ci ngiiru imam malik la tënk woon sëriñ bi day dellu ci imam malik ne imam malik ngiram laa tënk ñooñu ñoo ko gën a foor ñooñu ñoo ko gën a foor téeméeri junni yoon ma njëkkee ci kan ci kan laa war a njëkkee waaw nañ njëkkee ci waa ji gars na yaatu ah mooy Sadio asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñaan nag

kum neex jàpp lii may wax kum neex bañ koo jàpp. bon léegi asmaaw ahlu badrin mooy turu waa badar waa badar xam ngeen badar mooy saxaaba yu fekkee woon badar ci loolu lañ ko laaj quoi ci turu saxaaba yu fekkee badar léegi sëriñ bi ci loolu lay tontu léegi nañ déglu sëriñ bi lan lay lan lay wax mooy saxaaba yi nga xam ne ñoo fekkee badar ànd ak yonente bi ci loolu la ko laaj léegi nañ ñu déglu sëriñ bi lu muy wax sëñ Abdou Samad la sëñ Abdou Samad Mbàkke xam ngeen ko moom mooy wax nii asmaaru badrin dafa mel na bomb oto bi nga fab ceeb ji di ko këlikalee ceeb ji koy taal nga fab kon di ko def nii wala gone yor ko jëm ci bomb ba taxamu ba doon ko ci dugalam noonu rek laa la mën a misaal du lu laal xasida la goo xam ne suñu jaañ ñii ne woon dari kaamil siñu blaat andi woon ko fi moo ma wax nee na bàyyam suñ fal da koo binduloo ba mu àggal mu di ko woon ko sëñ bi ci njaareem ne ko dama ci doon laaj ndigal xanaa loolu rek doy na sëñ Fallu ni ni lu tax mu ne bala koo def laaj ci ndigal loolu rek doy na bu liggéey woon ko sëñ bi sëñ bi xool xool ba noppi ne ko Fallu daal koy teg fii Fallu demal seet geneen gii du xasida gone sëñ Fallu laa wax de Ah, Fallou mag ma waaw mag ma nga xam li mu doon ci sëñ bi. cër bi am ci borom. kon sëñ bi daa bëgg a jàngal murid yi ne xasida gii du gu ñuy jàng ndax gone. kon ndegam sëñ Fallou la ne. xii du gii kon keneen ma tax. sëñ Fallou ne ko fa ñukk. bi ci des. ku yor wax na ma ne sëñ Bachirou nee na ko. toog naa ci sëriñ bi. am naaru gànnaar di ko laaj. Mm. sëñ bi ne ko. Mm. ah. naa la ko jox ba yóbbu ko de waaye boo ko yóbbu gàtt ga dana yëngu de kon loolu mooy xaal bi ko sëñ bi defee eh, jóg jëm ci tukki bi ne ci yoon wi di ko def di tudd seeni tur turum egsi borom day dikk teew ci kanam mboolem ahlu badar ku ca mas a bokk sa jëmmee ñëw ba teew présenté woon sëñ bi ne ko man mii maay diw doomi diw diw ci laa bokkoon ma ma ma fare woon sàppe sa maa féete woon nii maay diw ba mu leer ko mu door bind xaal boobu nag moo tax xasida gi dafa am dafa am boo xam ne. du lu ñuy jàng. mu ne noo mën a wax ko dégg waaye du lu ñuy jàng ko fi bàyyi ana lu ñu njëriñam dëgg-dëgg. denc koy sa ko. denc koy say bagage ko. denc koy sa place ko. foo ko def dana mucc te ab saay-saay dafa mën dara. waaye du lu ñuy jàng yëpp xam. xaman saa fa li saa fa dégg foofu. mbokkum taalibe bi nga xam ne. léegi <laughs> léegi bi. deer asba ahlul badr jom sall maa ngi lay bu baax non kii mooy sëñ sëñ sëñ Abdou Samad moom yu yéeme rek lay wax moom moom moom moo fi waxoon ne euh, Mikaël dafa ànd ak sëñ bi Mikaël bi nga xam ne moo géré taw bi ne dafa àndoon ak bi après comme yooyu rek moom moo fi waxoon yooyu quoi moom moo fi tubloor waa ji ne ko ndax da bëgg doon jullit semp wala da ngaa bëgg doon julit wala da ngaa bëgg doon murit moom yu yéeme rek lay wax. maa lay ziar El Maydou Bousso maa lay baax a baax Jaxite Diouf Sam maa lay ziar euh, Kalidou Saliou Ndiaye maa lay maa leen di ziar gars yi yaatu leen vidéo mu gën a yaatu léegi sëñ Abdou Samad la tudd ah nee na sëriñ bi dafa bind téere tuddee turwaa turuwaa Badar mooy saxaaba yu <laughs> yu demoon Badar saxaaba yi nga xam ne joo fekkee Badar quoi saxaaba yooyu bëri nañ léegi nee na saxaaba yooyu noonu. sëñ bi dafa bind seen tour ñoom ñëpp Ibrahima Ndiaye maa ngi delloo ziar sëñ bi ba mu bindee seeni tur après am ku ñëw ci Serigne Fallou laaj ko ci loolu mun ko xasida bi du xasidam gone maanaam xasida turu waa Badar du xasidam gone ne ko sëñ bi nag dafa daj ak benn naar naar bi laaj ko ci sëñ bi ci tukki la ko bind xaw ma léegi sëñ bi nag bu tudd turu waa Badar man saxaar bi nekk Badar sëñ bi ku mu tudd sa tur rek. ci téere boobu buy bind ba lim turu benn saxaaba rek saxaaba bi day jóge bàmmeelam ne pëng ñëw ci sëriñ bi daal di ko ne man mii la diw man bokkoon naa ci ñu fekkee badal <laughs> après daal dellu bàmmeelam bu limaatee beneen turu saxaaba saxaaba boobu tamit daal di jóge bàmmeelam ñëw ñaata saxaaba lañ ëpp nañ cent quoi ëpp nañ euh, fàcc naa turu ba xam quatre cent et xaw ma nee na daal saxaaba yooyu yëpp sëñ bi comme ci tudd turam rek day jóge bàmmeelam ñëw ba ci sëñ bi ne ko man la diw après doog a dellu bàmmeelam lii la wax léegi balaa ñu koy dajji damay bàyyi ngeen dégluwaat ko parce que euh, man damay bëgg li may dajji mu leer quoi comme que gars yi dañoo am tendance di wax ni yéen da ngeen di da ngeen di tuumalaateeg yooyu ma indiwaat ko waa ah, ngeen déglu ko. mbokkum taalibe bi nga xam ne. du doyal tuyaaba mukk waxtu ni muy wut wut sëñ bi ci lu ne moom laa joxoon xasida gi ne ko mu jaayante mool ci ab ndax ñu man koo baaxe taalibe yi jaay ñu ko nag jaay ñu ko di ñaan we we wecc weccaxante <laughs> ko xam nañ koy waaye waaye njëkk waaye wecce loolu la yem gaay yi len bu baax déglu len bu baax. lolé na ci indi leral yo xamné ku neex japp li may wax ku neex bañ ko japp way li may wax rek moy li wër asma ru badrin dafa mel na bomb atomique nga fab ci abi di ko këlli-këllee ok nee na téere bi asmaa ahli badrin téere sëriñ bi dafa melni ni bomb atomique bo xamni da ngay for ceeb bi di ko këlli-këllee li téere sëñ bi ko bind léegi mom day wax ci téere bi moy turu wa ba bu sëriñ bi bind nee na comme bombe atomique la. su koy tam nga fa kon di ko def ni wala gona yor ko jëm ci bombe ba te xamoo ba ko ci dugalam déet non rek la la ko mëna a du lu ñuy laal que la go xam ne sëñ bi jañ ni ne dari kat léegi muy muy ngandal qasida bi quoi dara du du lu ñuy laal manam du du xasida bu wax pour moom xasida bu extra lo xamni kenn mënu ko laal wala kenn mënu ko lire wala xasida bi dafa diis ben diisaay boo xamante ni mooy loolu alquran gëna gën a alquran dañ koy laal diko jang diko yëkëti diko tek waxu yaron nabi sallallahu sallam wasallam mo gëna diis waxu serigne bi waxu yaron bi mo gëna a gëna am solo fuf waxu serigne bi te pourtant waxu yaron bi fuñ ko bind téré hadith yu ko bind téré yoy dañ koy yëkëti diko ko laal di ko te amul benn danger te amul benn danger waaw comme ngandal bi mu bëgg a ngandal loolu du dara quoi loolu da koy def ñoo xam ne da koy def ñoo xam ne xamuñu comme téere sëriñ bi amul benn téere bu diis amul benn téere bu naan téere bi dafa diis dafa diis kenn du ko laal ak kenn du ko jege yooyu yëpp seen xeetu nappe la quoi téere bu ñu mënul jàng téere sëñ bu ñu mënul liir bu ñu mënul jàng amul sëñ bi téere yëpp lañ mën a jàng téere yëpp lañ mën a ubbi liir ko amul benn téere semi bu la naan téere bi kenn mënu ko liir loolu amul loolu ay fuuxalaate la ay nappaate bu ko defee ngandal seeni bindu maam bind la rek comme yeneen bind yi bind la ah. la comme imam mu bindee mu waxta imam Malik sax amaane bind moo gën am solo parce que ay xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam la comme ibnu Hajar nu muy bindee bind la comme al-Ghazali nu muy bindee bind la euh, rek diisul de sëñ bi bind bi non ñame nañ koo laal de ñame nañ koo laal man soo ma ko joxee ma laal ko soo ma ko joxee ma liir ko te su ma ko liir damay comprendre parce que arabe la sëñ bi arabe la fa làq làq fa leneen arabe yi leer la fa làq te arabe yi dégg nañ ko man am na téere ko gën a ngande quoi te gars yi dañ koy liir quoi hmm? musnad imam ahmad moo gën a ngande ay tom yu tom la nga xam da see dajale saxaaba bu nekk ak say xadis te téere yooyu ñu ngi koy laal pourquoi nga ne téere kenn mënu koo laal dafa dis dis boo xam ne kenn mënu ko laal loolu yëpp ay xéetu napaté la quoi. comme lolu dara comme téré bi benn téré la rek bo xamne matul sax 200 pages téré bu muy wax ni 200 pages sax matuko téré bobu lay jéem ngandal ni quoi. sëñ bi ni néwon Dari Kamil sëñ bi laat andi woon ko fi moom ko wax néna bayam bàyyam fal Fall dëkk koo bind ko ba magal mu di ko won ko sëñ bi ci njaareem. ne ko ci doon laaj ndigal xanaa loolu mu tax mu ne bala koo laaj ci ndigal ko sëñ daal koy teg fii fal demal seet geneen alxuraan a gën a foor téere bu alxuraan boo koy laal kenn du la laaj ndigal alxuraan soo koy laal amul ndigal na nga laal alxuraan moo gën a foor te alxuraan kenn amul kenn benn julli bu ñu wax ne alxuraan boo koy laal da war am ndigal wala téere xadis yonente bi mu waxtaa imaam Malik soo koy laal da war a am ndigal kon loolu yëpp ci seen xeetu euh, nappele ak seen xeet yooyu waaye du dara Modou Dioum maa ngi delloo ziar Diom maa ngi lay ziar Aliou Sow maa ngi lay ziar maa ngi jégalu sama gars yi euh, kii nee na Mouhamed Faye nee na y' a pas que les tarixa qui font importer quoi même y' a aussi Ahmed Lo qui défend Macky Sall man lu Ahmed Lo wax ci Macky Sall man sama yoon newu ci quoi concerné wu da dem nga laaj ko Ahmed Lo man concerné wu ma quoi voilà man politique ma nekkuma ci politique te góobu ne sax Ahmed Lo day politique Ahmed Lo docteur Ahmed boobu politique wul léegi lu mu wax Macky Sall nag dama nga laaj man dégguma fenn fu mu waxee ba ne Macky Sall voilà léegi nag da ngay nga laaj ko moom moom la concerné quoi man concerné wu ma quoi man politique ma du ma Macky du ma Sonko du ma kenn man lu ma yitteel moom mooy leeral pas-pas yu bon yi leeral sëriñ si di naxaate man loolu moom ma yitteel quoi. leeral ñii di ndax nañu turu diine waaw comme genre commentaire yooyu moom vraiment euh, bu yow wa ngeen téye ko euh, lu lu docteur Ahmed Lo wax moom la ko dem leen ngeen laaj ko la moo tax moo ko quoi man alpha mooy wax fii quoi voilà man maa man lu may wax sama responsable bopp du ma taalibe kenn tënku ma ci benn association du ma voilà man maa jël samay responsable bopp di wax li may wax euh, comme dégg ngeen ma indi daal leen sëriñ bi ah sëriñ bi nee na nee na téere bi kenn mënu koo laal quoi téere sëriñ bi dafa foor ba nga xam ne téere maamam nee na dafa foor jéggi dayoo ba nga xam ni kenn mënu koo jege kenn mënu koo laal <laughs> non c'est pas possible ñam daal seen maam moom moo bind loo xam ne kenn ñemewu koo laal ku ko jàng daal xëy da ngay faatu wala boo ko jàngee da ngay alko sëñ bi li wax amul de te maa ngi ñëw décorté ko li dara amu ci Amadou Hadi Kane maa ngi lay ziar bu baax Abdou Khadim mbub maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax maa ngi ziar sama gaay léegi ma ñëw euh, dëgg la sëñ Fall laa wax de ah, sëñ nga xam ne mu doon ci sëñ bi kon sëñ bi da bëgg jàngal murid yi ne xasida gi dugg ñuy jàng ndax gone kon digam sëñ Fall la ne xii gi du xasida gone kon keneen ma xasida bi bu fekkee du lu ñuy jàng la moo tax ñu koy bind dangaa mës a gënd ab téere bu ñu bu ñu bu ñu bind te kenn du ko jàng comme lam moo nekk sens sëñ bi di ko bind ko bàyyi fii ana sens bi fekkee nga sa xasida bu am du xasida bu ñuy jàng xasida bi dafa diis dafa àgg daraja boo xamante ni kenn mënu koo jàng kenn mënu koo lire bu fekke loolu ko la mo tax muy bind yakana bindul non rek pour sandi ko de dafa bind pour nit ñi di ko dafa bind pour nit ñi di ko da ngay xol ñom bu ñuy wax ci qasida yi duñ ko wax sax ci alquran te alquran gëna a foor qasida yi qasida bindu doom adam la rek lele xalaatam lay duggal léeg xalaatam lay indi rek tek te alquran dafa mat seuk te pourtant do la deg ñu naan no alquran wuu alquran ñam waroko laal alquran kenn du ko alquran du lu ñuy jang dede alxuraan moo gën ci téere yi te dañ koy jàng te dañ ko war a jàng ndax soo ko jàngul doo jëriñu alxuraan lu tax mu wàcc mooy nit ñi jàng ko ngir xam ko firi ko doomu aadama yi waaye nee yow sa téere maam dafa diis dafa am benn poids boo xamante ni kenn mënu koo jàng Omar Ba nee na ce qui est effrayant c'est de voir à quel point les talibés sont prêts à tout gobe waa gis nga léegi ma àggali nag moom ci téere sër bi la wax nee na téere maamam boobu di asmaaw ahli badarin turu waa badar nee na téere bi daa diis ba nga xam ne kenn munu koo jàng kenn mënu ko laal instant muy ngandal téere bi di ko yëkkati. xëy na gii du xasida gone. waaw kon keneen si yoon na ko fa mm. ku yor wax na ma ne Cheikh Bachirou nee na ko. Mm. toog naa ci sëriñ bi. Mm. am naa gànnaar di ko gis nga saa ñuy teg seen affaire saa ñuy màggal sëriñ bi rek naar gànnaar la ñuy dem jëli seetlu ngeen leen ñu bëri ci ñoom saa ñu bëggee jëm ne sëriñ bi amul morom rek wala bëgg indi benn kiraamal sëriñ bi dañuy dem jëli benn naar ne naar bi moo jóge fee ñëw lool xam nga loolu ñoom ñoo koy def exprès quoi parce que xam nañ ni naar boo nee jàng arab wala jàng diine sa xel day dem ci naar bu ñu nee naar rek dangay naan naar yi dañoo jàng léegi ñoom pour gën a yëkkati seen sëriñ à chaque fois duñu la wax daa daj ak Samba wala Demba wala Mbay wala paate a chaque fois naaru naaru mauritanien lañ lay wax wala naaru sew saoudien pour rek gën a gën la bëgg a won ni sëriñ bi dafa jommal ñooñu dafa jommal naaru saoudien yi dafa jommal naaru mauritanien yi maanaam sëriñ bi naar bi sax dafa réer xamul sax fu mu jëm après sëriñ bi moo ko gàgganti quoi loolu yëpp seen stratégie màggal seen maam la léegi ñu àggali euh, waxu sëriñ bi fu mu jëm léegi nee na téereem boobu di téere sëriñ bi sëriñ bi téere bu mu bind asmaa ahli badrin nee na téere bi daa am kiraama boo xam ne kenn mënu koo jàng kenn mënu koo liir ba teg na ci yeneen kiraama sax waaw nee téere bi sëñ bi ba mu koy bind turu saxaaba bu mu tudd rek saxaaba bi day naan fëq ci bàmmeelam ñëw wuyu ko pare delluwaat ñu déglu mais man vraiment man portable bi ak code bi mooy soof quoi oh my god bàle de parce que portable bi euh, ay code la may laaj ak ay affaire kenn xamul du sonal <clears throat> voilà. sëñ bi d'accord. ah naa la ko jox ko yóbbu ko de waaye boo ko yóbbu gàtt gi dana yëngu de. Eh. kon loolu mooy xaal bi ko sëñ bi defee. Eh. jóg jëm ci tukki bi ne ci yoon wi di ko def di tudd seeni tur turum egsi borom di dikk ci kanam <laughs> nee na bi ba muy bind ba muy bind téere bi mooy turu waa badar turu saxaaba yu fekkee badar nee na tur ba mu tudd ba agsi ba agsi rek borom da naan cëpp ci bàmmeelam jug ñëw wuñu sëriñ bi exemple yu fekkee badar exemple saxaaba yu fekkee badar abou bakar ci la bokk omar Eh, yaakaar naa Ousmane yaakaar naa Abdullah ibn Mas'ud Hamza ñooñu léegi nee na bu ne bu ñëwee ba di tudd turu waa Badar saxaaba yi ci téere bi quoi te loolu ay année mille cent la mille huit cent fekk na saxaaba yu bari faatu nañ nee na kum ci tudd turam rek da ngay jóge sa bàmmeel ñëw cëpp wuyu sëriñ bi après doog a dellu bu ne Aboubacar Aboubacar day jóge ci bàmmeelam ñëw wuyu ko ne ko sëñ bi naam maa ngi nii man la Aboubacar su paree bu doog a dellu bu dee Umar. Umar ne cëpp naam maa ngi nii après mu dellu bu Bilal Bilal day jógee bàmmeelam ba ca Madina wala Umar mooy jógee bàmmeelam ba ca Madina ñëw ba ca Bawal ne ko sëñ bi naam après dellu bu ne Talha talha day jógee bàmmeelam ba ca Madina ñëw ñëw ci Bawal ne ko sëñ bi naam man la talha mu dellu sëñ Chouaïbou moo wax lii ah léegi nag mu des mu wax ñu preuve anamu bokk sa jëmmay ñëw ba teew présenté woon sëñ bi ne ko man mii maay diw doomi diw diw ci laa bokkoon ma ma ma maa fare woon sàppe sa maa féete woon nii maay diw ba leer ko mu door bind xaal boobu nag moo tax xasida gi dafa am dafa am diisaay boo xam ne du lu ñuy jàng mu loo mën a wax duñ ko dégg waaye asmaa li ba du lu ñuy jàng nañ ko fi bàyyi ana luy njëriñam dëgg-dëgg denc koy sëkkër mu ko denc koy say bagage mu aar ko denc koy nee na téere boobu du téere bu ñuy jàng waaye am na njëriñ njëriñam mooy denc ko sa bagage mu aar la nee na téere bi mooy sëñ bi téere yooyu mu jël tuddee ko asmaaw ahli badrin turu waa badar nee na téere bi boo ko jëlee da koy denc sa bagage mu aar la téere bay aar téere bi ay turu waa badar rek nee soo ko denc sa bagage da lay aar lii sëñ Choy bi bëgg nañ nga wax ñu lii ana tegtalam ci alquran ak sunna parce que da nga wax aar boo waxee ba ne luy aar jullit luy aar nit dañu war a indil dalil léegi sëñ sëñ Abdou Samane Mbacke boog ñu lay laaj nga indi ñu dalil ci alxuraan ak sunna loolu amul dalil ci alxuraan sunna loolu moom moo ko créé sëñ Abdou Samane Mbacke yaa créé lii yaa créé lii musluwaay yonent bi salaa sallam joxe musluwaay yi nga xam ne yonent salaa moom la joxe ne day aar nit asmaawu ahli badrin bokk si sa téere maam bii nga tudd bokk ci damal nga dellu mboolem musluwaay dellu xisnul muslim dellu mboolem musluwaayu sunna yi yi nga xam ne moom la charia jàngale ne dañ ko war a musloo sëriñ euh, Abdou Samad Mbacké sa téere boobu bokk ci loolu yéen ko créé daf ko musluwaay ñaareel bi mooy loolu mënul nekk musluwaay alxuraan sax da koy denc say bagage sàcc bu ñëwee sàcc ko da koy sàcc comme alxuraan defuñu ko ngir muy aar alxuraan ci boppam moo gën a fort alxuraan mo gëna fort mais defuñu ko pour di tek muy aar yéré wala di aar bagage wala di aar alal mais alquran dañ ko fi tek ngir ñukay jang jàng alquran dañ ko tek ngir ñukay jang ko wax ji wax ju yaqku la wax ju yaqku la mais ñu agali bu ñu ñëwee ñu dal di décortiquer dal di koy radd secta la waaleykum salaam alayhi xalaas mu aar ko foo ko def dana mucc tab say say dafa man dara waye du lay jang na ko yëpp xam faman saafa li yomin faman téere bi du lu ñuy jàng loolu moom na ko murit yëpp xam téere bi du lu ñuy jàng waaw téere si sëñ bi téere bu ñu dul jàng amul lu ñu bind tuddee ko téere te duñ ko jàng amul comme téere bi amul njëriñ comme ka ko bind lu tax mu bind ko amul njëriñ ka bind téere bi du ko bind ngir ñuy jàng ko sëñ bi léeg-léeg da wax ay wax mais wax des fois bu ñuy wax du ñu bàyyi xel seen dañuy bëgg a ngandal seen maam bëgg nax taalibe yi ba des fois lu ñuy wax ñoom duñ ci bàyyi xel quoi yow mënoo bind boo bindee turu waa Badar pour lan la fekkee sëriñ bi fekkee loolu wër naa fekkee wër na ni sëriñ moo bind benn téere tuddee ko turu waa Badar loolu da koo bind ngir ñu xam turu waa Badar ngir ñu xam saxaaba yu fekkee Badar da koo bind bàyyil ko fi ndongo yi ngir ñu mën a xam yan saxaaba ñoo fekkee Badar. ndongo yi war ko jàng xam ko léegi nga ne téere boobu kenn ko jàng téere ay tur kese téere boo xam ne abu bakar Umar lañ ci bind Ousmane Ali Hamza turu saxaaba yu fekkee Badar euh, Uqba yooyu lañ ci bind yooyu lan mën a aar ay tur ay tur daa mën a aar tur fan la islaam jàngalee ni ay tur mën na aar nit fan la islaam jàngalee ni ay tur musluwaay la amul fenn fu ko islaam jàngale islam amul fenn fu bu jàngalee ni ay tur musluwaay la ci diine déedéet tur musul nekk musluwaay <laughs> tur rek diw Aboubacar Omar Ousmane turu tur rek denc ko fenn loolu nekk musluwaay loolu aar say bagage alal ah daal di aar daal di aar lépp loolu fan am bàyyi leen xelu nit yi ngeen di fooy jàngal leen nit ñi diine sëriñ bi jàngal leen nit ñi diine firil leen nit ñi alquran faatiha sax mënoo leen ko firi yée mariama yee mariama tëtu non des fois doo comprendre quoi da ngay naan ñii di déglu seen xel yi fan la nekk yéen sëriñ seetlu leen gars yi ñii du ñu toog mukk ba jël benn saar décortiquer ko exemple ñu ne la qul huwallahu ahad décortiquer qul huwallahu ahad ne la qul huwallahu ahad fii la wàcc lu tax mu wàcc lii moo tax mu wàcc yàlla nee na moom kenn la yàlla nee na moom la ñëpp di dellu yàlla nee na jurul kenn que de décortiquer firil leen alquran sëriñ bi nekkoon na firi fatiha quoi sëriñ bi xool mais dama leen di laaj kan ngeen gis ci ñoom ñu toog mais di firi alquran mais dama leen laaj tontu leen ma si Abdou Samane Mbacké mi est-ce que mos ngeen gis mu toog jël kaamil alquran di ko firi Bas Abdou Khadir mos ngeen ko toog mu gis ngeen ko euh, est-ce que mës ngeen gis Bas Abdou Khadir maanaam weeru koor jot. mu taxaw ubbi kaamil di tafsir alquran bas abdou xaadi est ce que mun ngeen mun ngeen ko gis mu yéeg minbar aljuma di xutba di wax ci actualité du xutba di décortiquer di indi aaya yi comme ni nga xam ne borom xam-xam noonu lañ koy defee bas abdou xaadi ban juma lay xutba aljuma gars yi tontu lee ma soo leen ko xamee bas abdou xaadi ban juma lay xutba aljuma si abdou sawoon màkk bi ban juma lay xutba aljuma kan ci ñoom mooy def exemple comme Rafa yi Mbàkke nga xam ne da nga koy gis ci xutba yi muy wax ci actualité di wax ci yeneen di wax ci maanaam au moins même loolu kan ci ñoom nga gis mu koy def comme yéen seen nekkub sëriñ ban njëriñ la am yéen daal seen nekkub sëriñ weesuwul lu dul sëriñ bi daal téere téere bi la bind téere bi kenn mënu koo jàng téere bi kenn mënu koo comprendre téere bi day aar say bagage boo ko dencee say bagage dalay aar téere bi dalee aaral sa njaboot téere bi dalay dalay def nangam dalay def nangam après loolu ban jaamu yàlla lañ ci mën a jëlee léegi lu wax fii téere téere maamam téere sëriñ bi téere bi nangam nangam téere bi nee na téere bi <laughs> non mais c'est pas na téere bi turu waa Badar saxaaba bu mu tudd rek saxaaba da daan cëpp jóge bàmmeelam ñoo ci sëriñ bi ne ko naam mbàkke après doo dellu palaasam doo ko dem tëddaat ci bàmmeelam mais kat ngeen di foowee yàlla nee na wa min waraihim barsaxun ila yawmi yubaathuun yàlla nee ku faatu moo xam saxaaba yi la moo xam yonente yi la moo xam ku munta doon barsax barsax mooy nekk sa dëkkuwaay ba keroog yowmal xiyaam maanaam yow foofu nga dugg ci bàmmeel doo jugaat ba keroog yowmal xiyaam lii alquran la la ku dee du dekki mu taxaw nee na neenooy nee nooy sëriñam nee maamam dafa doon lim turu waa Badar waaye saxaaba bu mu turu turam rek saxaaba bi day jóge Madina wala jóge Makka ne bukk ci bàmmeelam ñëw ne ñëw bawal ne ko naam Mbàkke je suis présent maa ngi nii après delluwaat mais bu leen fooyee xolu xel bu xelu nit ñi quoi jàngal leen nit ñi islaam jàngal leen nit ñi diine lislaam taalibe yi yeewu leen ngeen dem jàngi seen diine dem leen déglu ji leen di wax yàlla nee na yonente bi nee na déglu leen kay ubbi téere alquran di ko tafsir di leen jàngal dem leen déglu ñoo ñu bari nañ dem leen déglu koo xam ne day xutba jumaa dem leen ngeen xool dem leen ngeen xool ñuy xutba jumaa ngeen ngeen déglu leen déglu leen ñoo xam ni bu ñu toogee dañ leen wax yàlla dañ leen wax yonente bi nañ leen expliquer histoire u saxaaba yi waaye koo xam ne da ngay toog ji nettali rek léegi lu mu wax fii nettali la kan moo ko wax xamuñu ko lu wax ni du aaya du xadis lan la dafa nettali rek nettali kese diina boo xam ne ko bëgg a tënk ci nettali diina boo xam ni amul lii la yàlla wax amul lii la yonente bi wax waaye nettali rek nettali bi yépp autour de sama maam sama maam moo def lii sama maam moo def ne sama maam moo def lee sama maam moo def lee léegi wax ji yépp defu ko lu dul rek gën a yëkkati maam pour bëgg a wan ni maamam du moroomu kenn parce que bu fekkente ni maamam moom moo ñëw bind benn téere tuddee ko euh, turu waa Badar saxaaba bu mu tudd saxaaba boobu day jóge bàmmeelam ñëw ci moom bëgg na wan ni maamam moo gën a fort sax saxaaba yi parce que saxaaba yi dañoo déggal maamam ba nga xam ne maamam bu leen woowee sax dañu jóge seen bàmmeel deewoon dañoo deewoon mais dañu fay jógee ñëw quoi mais mais mais bu la ñuy nag ba pare nit ñi bu ñu waxee ngeen taxe leen euh, de de de de ñàkk yar ngeen taxé leen de reewande ngeen taxé leen de diingat te fekk yéen li ngeen di wax bu ñu ko xoolee ba xool moom mooy dëgg-dëgg diingat parce que da ngeen di diingat saxaaba yi da ngeen di diingat xelu nit ñi da ngeen di foowee xelu nit ñi da ngay diingat da moom moo gën a raw diingat parce que da ngeen di ñëw di di di diingat yàlla parce que yàlla mi ne woon ku faatu du jógaat wa min waraahum barsaxun ilaa yawm yubaasun ne nga yàlla boobu lu mu wax dafay wul noonu parce que sëñ bi dafa tudd saxaaba diw rek saxaaba daal di jóg ci bàmmeelam ne bëq rek daal di wuyu sëñ bi sëñ Abdou Samad Mbacké waaye du nii waaye du nii ah tant que yéen a ngi réeral nag di wax ci diina ji wala di wax ci saxaaba yi naka su dul noonu dama leen ko waxee rek dinañ taxaw leeral ko voilà soo leen bëggee ñu noppi rek noppi leen ci diina yàlla ji noppi leen ci yonente bi noppi leen ci saxaaba yi parce que loolu loolu da ko bokk ak ñun da ngeen bokk ak ñun loolu ma ñëwaat ci. benen video bi ba ma yaakaar naa ci ki lay ñew ci eh, ci kara lay ñew quoi vraiment code bi <clears throat> ok légui ñu dess ci Abdou Samad Mbacké ba légui hein bala ñu dem ci kenen nañ dess ci Abdou Samad Mbacké ba légui bismillah ma ngi jéggu nak affaire yi ci ki la koy ci ay si Israël bi moo xam tabaski la moo xam koor la ci bëccëg bépp 5 bakteer muy sox boo fi waxee subhaanallaahi wa bihamdihi 313 ñetti téeméer ak fukk ñett yéene ko mboolem ñuy faatu fu ñu mën a ne rek mu dem seeni bàmmeel boo ko defee bàmmeel bu ne li àddina si yaatu yaatu néew bu ne bàmmeelam dañ ci dugal junne leer waaye yow mi ko defee rek suñu borom daal la may nag mooy faatu rek wala nga dugg si bàmmeel fekk junne leer yu la fii ne yoo xam ne mooy mooy mooy mooy yoolu li nga defoon ndax gisu naa ay fekk lañ ko def am ci loolu kon nag na ko ñëpp xam. seen i doon ay jullit seen i doon ay taal. léegi ñu dégluwaat ah ñu dégluwaat. Cheikh maa ngi lay jox lu am njëriñ ci saa yi moo xam tabaski la moo xam koor la ci bëccëg bépp di jëm di fenk ma kero muy sox boo fi waxee subhanallahi wa bihamdihi trois cent treize ñetti téeméer ak fukk ak ñett yéen a ko mboolem ñuy faatu fu ñu mën a ne rek mu dem seeni bàmmeel boo ko defee bàmmeel bu ne li àddina si yaatu yaatu néew bu ne bàmmeelam dañ ci dugal junnee leer waaye yow mi ko defee rek suñu borom daan la may nag mooy faatu rek wala nga dugg si bàmmeel fekk junnee leer yu la fi ne yoo mooy mooy mooy mooy yoolu li nga defoon loolu nag bisimilah rek am ci loolu kon nag da ko ñëpp waaw nee na iid mooy korite wala tabaski loolu bëgg a wax korite wala tabaski loolu mooy bisub iid dafa bëgg a wax ni dafa bëgg a wax ni bisub iid mooy bisub korite wala tabaski nee na boo toogee wax subhanallah wa bihamdi cent treize cent treize fois cent treize fois nee na nee na soo ko defee day dugg ci bàmmeel bu nekk bàmmeel bu nekk day am junni leer sëñ bi loolu wóorul loolu amul fenn lu njëkk mooy saxul ci sunna lim zikr boo xam ne subhanallah wa hamdi cent treize saxul subhanallah wa hamdi cent moo sax cent moo ñëw ci sunna waaye cent treize saxu si cent moo ñëw subhanallah wa hamdi ak cent boo xëyee suba ak subhanallah wa hamdi cent ngoon yooyu nag ci bis yëpp la jaglee luñ ko bisub tabaski korite dong loolu bis yëpp la yéen salaa salaam nee na képp koom dafa xëy wax subhanallah wa hamdi miatu marra cent fois nañ ko jégal nañ ko bindal tiyaabu jégal ko ay bakkaar ku gontu def laa def loolu tamit def la même chose dañ koy jégal ay tiyaaba bindal ko ay bakkaar comme sëñ bi lii moo wër bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme sëñ bi li ko wax nii nekkul nekkul lu wër comme lii laay wax mooy ñoom à chaque fois seen xel lañu rafet la toog di wax seen wax duñu wax ba indi la texte ba indi la aaya ba indi la xadis wax yépp imma mu nekk wax boo xam ne toog nañ bëgg nañ taalibe yi am lu ñu te ñoom munuñu leen firil alquran munuñu leen firil xadis parce que jànguñu xadis yonte bi salaa sallam wuñ ko léegi nag lu ci des nag moom mooy dañuy toog di nettali rek wala toog rek di wax comme nettali bi nga xam ne moom la nettali sànq sëriñ bi euh, xaw ma ba mu tuddee turu waa Badar saxaaba bu nekk dafa jóge ci bàmmeelam ne ko cëpp ne ko naam mbàkke après delluwaat ci bàmmeelam hmm. loolu nekk lu wër waaw loolu wërul loolu amul téere bi nag ba xam sëñ bee ko bind wala bind ko kooku moom leeru ma waaye lam ci wax ni ngëneel boobu la téere bi am amul waaw bu mu wax ngëneel bu mu wax ne euh, ngëneel boobu moo nekk ci téere bi téere sëriñ bi ne foo boo ko dencee fenn say bagage wala say yére da koy aar loolu tamit warul loolu warul amul benn téere bu ñu wax ni téere bi boo ko dajoo da lay aar alxuraan sax boo ko tegee say bagage ak say téere bu sàcc ñëwee sàcc ko mun na dem alxuraan lu ñuy jàng la mais teguñu ko pour muy aaray nit ak di protéger say bagage ak ak yooyu loolu yëpp warul naam euh, ñu dem ci beneen euh, ñu dem ci beneen vidéo <coughs> waaw ñu dem ñu des boowal ah ba tey ñu déglu kii France. takk leer la ñu yor nii te ñun ñaa ngi ciy def lu ne. Euh, mbokk yi nañu ñëw ci question yi ah.

chaque alxamis di mën a dimbali jaam yi di delluwaat da wax ji bu baax nee na téere sëriñ boobu téere sëriñ boobu xadimat am ndax boo ko jàngee nee na alxamis ci ngoon <laughs> nee boo faatoo ku faatu ku faatu bokk day génn ci bàmmeelam chaque alxamis ba aljuma di dimbali jaami su paree ñu delluwaat seen bàmmeel ma leen ko ngeen dégluwaat parce bugguma dama ko waxee rek dama bëgg lépp lu may wax rek mu nekk lu leer mu nekk ni nit ki moom moo ko moom moo ko moom moo ko moom moo ko wax gis nga de gars yi nettali rek parce que jànguñu parce que jànguñu moo tax ñoom à chaque fois ñoom nettali rek la ñu mën a wax waaw ku jàngul moom da ngay nettali rek parce que bu fekkee mënu ubbi nga nit ñi diine.

bindu sëriñ bi du alxuraan du sunna bindu sëriñ bi du bindu du waxu yàlla bind la comme paate mais toog fee bind comme moodu toog fee bind comme bind kese la bind sëriñ bi bindu nit la nit buy bind day am lu jub day am lu juum nit moo mel noonu bu fekkente ne ña gën a foor sëriñ ba muy ñoom imaam Malik ñeenti ngir yi imaam Malik Abu Hanifa Shafi ay ñooñu ñoo gën a foor sëriñ bi ñooñu dañuy bind sax di juum ñooñu nee nañu man li ma bind wala li ma wax mu dëppoo ak alxuraan sudda jël leen bu wut ak alxuraan sudda dóor leen ko ci miir bi sànni leen ko rejeté leen ko te ñooñu ñëpp xam nañu sëriñ bi ci ñooñu sax la tënk woon sëriñ bi ci ngiiru imaam Malik la tënk woon sëriñ bi day dellu ci imaam Malik ne imaam Malik ngiiram laa tënk ñooñu ñoo ko gën a foor ñooñu ñoo ko gën a foor téeméeri junni yoon bàlle moom ma tëbal waaj yi Omar Gueye bi Omar Gueye moom xaaral ma kii ko quoi ma bloqué ko parce que ay Omar Gueye soo soo fi waxaate si kii yooyu naa la bloqué de vraiment moom naa la chance nag comme lii du dëgg téere sëriñ boo xam da nga koy jàng soo ko jàngee rek après yow boo faatoo al khamis bu nek da ngay dekk di dimbali jaam war sa bammel loolu worul sëñ bi loolu du deug loolu amul loolu mbind kessa la yonente bi sax munu ko mënul dekkil ay nit qur'an sax munul def al qur'an bo faato amul fenn fu al qur'an boko jange ko jàngee ci ngor nga faatu Al-Khamis da ngay genn ba al juma di dimbali jaam delu war sa bammel xam li mom moy ay tiaxan quoi. nga Sénégal moo neex rek lii soo ko waxoon dëkk ñu àtte doo dootoo ko defaat exemple laa lay jox lii soo ko waxoon Arabie Saoudite police mooy ñëw jël si la di nga yàgg di nga tëj kaso di nga ñam kaso tuuti quoi doo ko génnaat parce que Sénégal nag moo am wax ci diina lu la neex waaw Sénégal boo waxee ci politicien yu jël si la tëj la hmm, soo waxee ci sëriñ ñu jël si la tëj la waaye nag ku ci diina ji la ko neex ay dee ay bàmmeel kooku moom kenn du ko def dara kooku moom mucc na mais li ay tappale la li dafa yomb li il suffit que nga am xel tuuti rek xam li amul dafa yomb wa sering bi mo la mo tax delu si wul serigne bi ko bindu mo ci bopam la mo tax al alxames du dellu si su sering ku ko jang rek day delu si ku jang mi du serigne bobu nga faatu alxames sax alxames da ngay delu ci di ñew ci kaw suuf di dimbali jami wa serigne sering bi ko bindu la moo ko delu ci sak chaque chaque alxames boobu hmm? lan moo koy lan moo ko teree dellu si moom mi ko bind moom mi ko bind sax mënul dellu si moom mi ko si bind mu ngi ci bàmmeelam soo ko wooyee du jóg da ngeen dem di ko ziar di ko wër da ngeen dem di ko ziar di sànni xaalis moom mi ko bind moom mënul dara mu mu ngi ci biir bàmmeelam ñëpp mënu faa génn nekk mu ngi ci biir bàmmeelam nekk ku lot moom sëriñ bi mënulu boppam dara waaw sëriñ bi mënulu boppam dara mu ngi ci biir bàmmeel bi. nekk nit ku lottu waaw nekk nit ku doyadi kooku lu mu mën bàyyi leen bàyyi leen seen font yi da leen wax nit ñi fekkee jàngoo leen moo leen wax moo leen firi nit ñi alquran moo leen firi nit ñi xadis mais ngeen libéré nit ñi ngeen bàyyi leen ngeen noppi moo ngeen jàpp ni leen réeral rek léegi ku dégg lii waroon a julli waroon a woor waroon a jaamu yàlla waroon a joxe azaka bu ko déggee yàccaaral ne ah mbindu sëriñ bi kay boo ko jàngee rek kay yow texe ga da ngay génnaat di dimbali gars yi bàyyil ma jàng mbindu sëriñ lii nag mooy indi ñu bëri ci nit ñi ci ñu tënku ci tarixa dañuy for bàyyi jaamu yàlla parce que leen indi leneen loo xam ne nee nañ leen jaamu ya julli yi ngay def woor yi ngay def am na loo xam ne yow boo ko jàngee rek benn yoon da koy remplacer bu ko defee ñoom ñu bàyyi lépp nag waaw bàyyi jaamu yàlla bàyyi woor bàyyi lépp ñu ne ah comme que benn baytu bii soo ko jàng kay da ngay texe waaw man tey maa tënku ci baytu boobu xaaral ma tënku ci baytu bi rek ci baytu bi rek at mi soo mënee bolokeel Omar Gueye bi nga bolokeel ma ko daa wax bàyyi ma jàng ko rek maam Cheikh Ngingue maa lay ziar parce loolu mooy li nga xamante ni moom ngeen moom. mais dafa yomb quoi buntu bobu ngeen ubi jaamu yalla ngeen bëgg mab parce que indi ngeen wirdu xamne tay ne ngeen tay wirdu bobu kuko ko def ku melni ni fatiha ne ngeen kuko ko def sa mbolé mi bakkar moom sa mbolé mi euh, jaamu yalla keneen dañuy jël jaamu yalla keneen jox lako ko ben exemple la fay joxe am ngeen khassida bo xamne kuñ ko suulaale muy jaawartu kuñ ko suulaale mom yow mom texe ak loo munta def boo nekkoon bokkaale kat boo nekkoon caaxaat kat texe ga nañ la ko suulaale rek nañ la ko suulaale benn waay bu mel ni man ne ah comme que man su ma deewee bu ñu ma suwaale suulaale jaawatu koy texe naa comme que man naa naa falaay naa falaay naa enjoy nekk ci mboy mi rek di foo di caaxaan parce que moom dafa def ci xelam ni bu faatoo dañ koy suulaaleel jaawatu day mucc mu nekk nag waroon jaamu yàlla ngeen xañ ko jaamu yàlla parce que yéen ko espéréloo yéen ko ne jaawartukar bu ñu la ko sóolaale dangay taxe man su ma leeroon su ma leeroon ni man su ma leeroon su ma leeroon am yaqiin ni téere bii kat suma ma deewee bu ma suulaalee téere sàngam damay taxe est-ce que dinaa jaamu yàlla niki noonu taalibe bii nga xam ne moom dafa réer xamul lu bari niveau jàngam àggul ci sama niveau moom sëriñ bi la jàpp ni mooy lépp parce que surtout sëriñ bi la wala doom bi sëriñ bu mu topp kooku ne ko kooku ne ko yow soo deewee boo faatoo defal lu la neex boo faatoo bu ñu la sulaaleeg jaawartu nga texe kooku lan lay def ngeen foog du bàyyi jaamu yàlla kooku day sànni jaamu yàlla di foo falaay def ko neex di xaar ñu sulaale ko jaawartu di xaar ñu sulaale ko jaawartu parce que loolu ngeen ko gëm loo mu dem ma gëm ko kooku lan lay jaamootu yàlla lan lay jaamootu yàlla exemple laa su ma yàlla ne woon boo defee lii ba dugal aljana yàlla su ma ne woon boo defee nangam mu dugal la aljana te yàlla waxam du deñ ok man dinaa nekkat fii di jaamu yàlla damay def loolu yàlla dugal ma aljana niki noonu exemple laa leen jox niki noonu yéen taalibe bii nga xam daf leen a gëm jàpp ni yéen li ngeen wax noonu la dem ba sax ba teg leen yonente bi jàpp ni yéen doo leen wax lu naka sulu lu noonu nga ne taalibe bi yow bu ñu la suulaale téele sëriñ bi jaawartu da ngay texe mu gëm loolu di foo di beure di dem ay soirée di am ay hmm nek ci plage ba ci dem yema ba hmm? nek ci football ba nek ci lamb ja nek ci lu ko neex parce que loolu ngeen ko gëmloo mu faatu du gis tus du gis dara àllaaxira lay comprendre nek da ngeen ko don nax ngeen ko don fowé yeewu leen bu ñuy wax dëgg la nag man ku mel ni man sama man man sama wax du du du du rafet quoi man nekkuma genre oustaz yoo xam ne ussage yu jéem a jaay la sage wala déedéet man nii laa mel nii laay waxee nii laay mel moom laa joxe du neex mais nag lii bu leen koy wax c'est pour ngeen dab dabal c'est c'est pour ngeen xalaat c'est pour ngeen ngeen utiliser seen xel tuuti même bu dekkee sax ay xadis yi du loolu doo leen comprendre mais utiliser seen xel rek xel laa lay jox rek. moo defaa fois may jëm waxe yoon ci xel da nga nax kii waxu kasaw kasaw la fi wax wax bu fi wax dëgërul képp ku gëm ni am na benn téere sëriñ boo xam ne soo ko jàngee boo deewee aljana nga jëm wala soo ko euh, wala buñ la ko suulaalee soo deewee aljana nga jëm dalay nax waxul dëgg alquran buñ la ko suulaalee lu tax nga dem aljana alquran boo deewee ñu suulaale ko sa jëf sa jëf yi nga deewee moom la yàlla di fay bu fekkee lu baax la bu fekkee lu baax bu fekkee lu bon la bu fekkee lu bon alxuraan laa wax moo gën a fort waaye du ma ne du du cent fois alxuraan du du milliard fois mbindu sëriñ bi bi du milliard moroomu mbindu sëriñ bi milliard fois laa wax nekk fi sax naan ay milliards sax dama damay xaw a xeeb alxuraan quoi damay xaw a yëkkati sax mbindu sëriñ bi alxuraan du moroomu mbindu sëriñ bi te alxuraan buñ la ko suulaalee du la jëriñ. xam nga la moo lay jëriñ jëf yi ñu nga daan jëf yu baax balaa ngay faatu balaa ñu lay suul loolu moo lay jëriñ waaye nga xaar ba ñu suul la ñu ne la suulaale téere téere sëriñ sàngam bu la ko suulaale ngay texe ay caaxaan la dañ leen di nax du dëgg du dëgg ñu xool keneen bon ñu dem ñu ñu ñu comédie tuuti quoi ñu dem comédie show tuuti ak Kara Masri la daal laay fiyee am nañu ko jàpp. nee na danoo moom ñeenti yoon danoo moomee nu ne. dafa am ngërëmul boromam mu fay ko jaam bi mu amaat leneen ngërëmam mu ko jaam bi mu amaat leneen sarax ko jaam bi mu amaat leneen ngërëmam mu jaay ko jaam bi. danoo moom ñeenti yoon. loolu moo tax mu ni kennam ku nekk. loo dugg da koo neex. bu ko neexee da lay ni ngay freiné sa mais man su ma neexee ma bàyyi leen ngeen di raata gaay raata gaay moom wala fi ko xam bëriwul waaw su ma neexee bàyyi leen ngeen di raata gaay di def lu leen neex bu ngeen dee ma dugal leen àjjana su ma neexee ngeen di jaamoo yàlla nu ne guddeeg bëccëg bu ngeen dee ma dugal leen sawara ma pouvoir la moom moo tax kenn Serigne Touba hmm. kenn Serigne Touba bul jéem xool ci moom lu bon bu ko yaakaaree ndax innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat ku tedd ki benn gut ci mbiram day gàcceel géejug leneen loolu moo tax Serigne Babacar Sarr Serigne Babacar Sarr Serigne Mbaye Sarr dafa ñëw ko yëngoom ni mu daan def kii nii dar ko waaw bënd bi jolli ñëw ba jub ko lo man di def na boo ko jubee faaw nga ne tek ndax jëmm jaar ak lu kenn ñi moom bàyyi la ma doon defaraam ñëw tedd ko wax ko ci xal ne ko dama bëgg nga bàyyi sa yëngu bi te dem jaamu ci yalla jël ab kamil jox ko mu def ko ci taal ba kamil ba tak ba jeex ngeen dégg américain bi ko defal xamal dañ ñu won ko bari ñu jox la nangam ak nangam ak nangam waye defini ñoo bokku ki ci ngëm la defee. Mm-hmm. kële def ci wet. si mbay saar moom. ok ñu dégluwaat ñu waa Sénégal surtout ñi dégg wolof. Mm-hmm. mooy ku tàddi moo wax ni danoo moom. axe waa Sénégal surtout ñi dégg wolof. Mm-hmm. mooy ku tàddi moo wax ni danoo moom. Ya wa fi nak iya, bon iya. fi nak Kara ngeen baal ma mais fii Kara waxu serigne bi la tek tolo parce que lu wax ni serigne bi dafa xaw wax lu mel non te lolu nonu wa yoon bi dañ ko nangu Kara dafa ne serigne bi moñu mom mu tek ko ci benn baytu serigne bi serigne mo ne zimaamu wara asri radallahi fi yadi neena anu, nosu jami mo ngi sama loxo serigne serigne bi mo wax lolu mo bindu lolu